ñu ngi leen di dalal jàmm ci xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu tukkee tey ci mbas mi fanweeri doomi aadama ñoo dolleekuwaat ci lim gu ko fi am ñaar fukk ak juróom-benn daal dinañuy wër tey am na ñaar ñu si ñàkkaat seen bakkan. mbirum weer wi démb moo newoon seen tu bu njëkk bi uh, si suñu réew mi nag di Sénégal am na ña nga xamante ne nii nee nañ gis nañu ko waaye am na ñi nga xamante ne nii gisuñu weer wi comme ca dëkk bu sell woowee di Touba uh, ba tax na rek mel na ni uh, ñaari bés yu wuute rek. Euh, la ñuy euh, tàmbale lii di koor gi comme ñiy tàmbale ni ki tey euh, ci talaata gi ñeneen tàmbale ni ki ëllëg ci àllarba gi danañ leen ko gën a yaatalal. juróom fukki million ak benn si suñuy koppar la njiital cantaakon yi di Serigne Saliou Thioune taawu ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune jox àddiya xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké gannaaw ba mu fa demee woon ni ki démb ci altine ji mbirum aji sax danañu si wax avocat wa maître El a Diouf daal dinay décider di Baline Kumba Baline mi nga xamante ne ni actrice principale ba Adji Sarr la tudd. xeex bu métti bu amoon ci tournoi de football bu ñu doon amal ca yëmbal sud te Ousseynou Ndiaye euh, ñàkk ci bakkanam danañu si àddu si bu ñuy yaatal xibaar yi ak détail ya ñu ci am yëpp. mbir mu doy waat di kawteef dëgg la ñu nemmeekoo te si diggante Touba ak euh, Njaareem benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom képp la waajuram bu góor daal di violé tëddee ko ñetti yoon ba euh, xale bu jigéen ba daal di say jëlee ëmb dañ leen dikkaatal si boobule xibaar ci ñu mu gën a yaatoo ak kaddu waajur bu jigéenu xale bi yëkkati danañ jubale tamit ca Pout addu ci mbirum xale bu jigéen bu am ñetti at bi nga xamante ni dafa jàngi woon ca daara ñu koy mu ñàkk bakkanam ci benn mu njëkk firndeel di beer réunion wu ñooñu fal ci coalition présidentielle bii di Benno Bokk Yaakaar njiital assemblée nationale bi di Moustapha Niass nekk tamit njiital alliance des forces du progrès daal dinay dal ña nga xamante ne ni ñooy critiquer njiitu réew mi Macky Macky Sall waajur bu góor su Ndour ak ay frère am ak euh, moo doon def anniversaire am ci noonu ne euh, famille Ndour gi yëpp daal di nañuy euh, démb si altine ji ci kii di père Elimane Ndour daal di koy souhaiter joyeux anniversaire mu am ci mbégte lool loolee yëpp bu yembe dinañu si toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy tëjee li moo ci gën fës ngeen taaxirlu rek gannaaw bàkk bi ñu yaatal ko. mu ngak bàkk ba jib na nuyu nañ leen dalal leen jàmm ci xibaar yi mbas mi la koy dooree si suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàccoo wàllum wér-gu-yaram wii tey juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama la ñu testé fanweer ñoo ca positif fukk ak ñetti dañ leen wàll lu tolloog fukk juróom-ñaar ya di ay cas communautaire bu weesoo loolu ñaar fukki doomi aadama ak juróom-benn daal dinañuy wër tey fukk ak ñeent sonn nañu ba ñu nga so étage am na ñaari doomi aadama yu ñàkkaat seen bakkan ci altine gi ba ñu amee nag suñu kaa bu njëkk si bile feebar ba jamono ji may wax ak yéen fanweeri junne doomi aadama ak juróom-ñeent ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñoo ko fi jot a amee si ñoom ñoo ñee fanweeri junne doomi aadama ak juróom-ñett ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn daal dinañ a juróom-ñett fukk si ñàkk seen bakkan fi ne nii téeméeri doomi aadama ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo amee coronavirus bi ñu leen si traité si suñu réew mi lee di Sénégal ma wax ci mbirum weer wi bu ñu sukkandikoo ci commission lunaire Euh, coordination des musulmans du Sénégal euh, démb ci altine ji yemoo woon ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru baraxlu daje nañu comme nañu ko tàmm di defee ngir séentu weer wi euh, si noonee ñu ne ba ñu ko séenoo jokkook seeni ay ndaw yi si gox yi nekk ci biir Sénégal ak si bitim réew gis nañu ne weer wi feeñ na fii si Sénégal ci dëkk bu ñuy wax Vélingara nga xam ne mbooloo gis nañu ko ci quartier Nasrullah feeñ tamit ca Gambie Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali ca Saudiya ak fàttali ñu ne tey talaata fukki fan ak ñett ci weeru avril mooy bés bu njëkk ci koor gi ca jumaa ju mag ja ca Touba responsable murid yu Serigne Mountakha Mbacké wax ñu sent weer wi gisuñu ko fenn yi bu Diop mu doon amal opération yi yeggee na taalibe yi message yu xalif bi ñoom nag nee nañu booloo nañu sentu weer wi ak Muxaddamatul Xidma waaye gisuñu ko fenn ba ba ñuy noddugee ak gox yu ko wër yëpp tamit ci noonee nag nee nañu la koowee ak commission nationale d' observation du croissant lunaire bu nekk Dakar jokkoo tamit ak xalif général di mourides Serigne Mountakha Mbacké mu xamal leen ni comme que ba heure bi gisuñu weer bi mën nañoo ne weer wi feeñul ba tax na ëllëg ci àllarba gi mooy fan bu njëkku ci koor gi te na ñëpp xam ni weer wi feeñul ca dëkk bu sell boobee di Touba laataa ñuy dellu di xam le ni weeru koor gi ëllëg fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 2021 bii ñu nekk lay door juróom fukki million ak benn si suñuy koppar la njiital cantaakon yi Serigne Saliou jox adiya xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké mu àndoon ak délégation bu rëy bokk si ay taalibeem taawu ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune bi démb si altine ji la dem ca Touba seeti ji xalif bi ngir xew xew 17 avril bi di bés bu cinquième xalifu Bamba bi Serigne Saliou Mbacké gisewee ak Cheikh Béthio Thioune ca Madinatul Salaam nekk ci département bu Mbour bu ñu Saliou Thioune mbégte mu rëy la xalif bi am uh, ci tukki bu nemmeekoom boobee mu def ci Touba ngir uh, waxtaan ak moom ba noppi uh, xamal ko ne ku bëgg grâce dina topp si ay tànk maître El Hadj Diouf daa dinay décidé porter plainte promoteur yu série yi di Baline Kumba Baline moom nag daleen tuumal ni dañoo bëgg décrédibiliser clientam bii di Adji Sarr ci ab série ba ko ñenn nag si suñu naataango yi woowee téléphone maître El Hadj Diouf mu leen xamal moo di eh, procédure bi ñu mu visé mooy eh, ñu def téléfilm ngir eh, weeru koor gi te Adji Sarr nekk ci actrice principale bi ñu présenté ko comme nit kuy jaay boppam ci mbedd mi di chantage nit ñi si noonu maître ne nag duñu ko seetaan muy jàll lu ñeel plainte bi maître ne na démb si journée bi lañu ko déposé ndax ñoo ngi nekkoon di koy préparé te bu weesoo justice bi la Hadj Diouf nee na it dinañu saisir Sendra ba tey ci xibaar yi soxna maître Moussa Diop bu génnee àdduna ci réewum France daal dinañu koy indi ba denc ko armeeru Yoff nakar ak tristesse bu rëy la nemmeeku bés boobee ñu ko doon denc comme nu ngeen koy gisee noonu ci image yi yàlla na ko yàlla yërëm Euh, bu ñu sukkandikoo ci journal bii di observateur xeex bu métti bu amoon ci tournoi de football euh, bu ñu doon amal ca yëmbal sud te Ousseynou Ndiaye ñàkk ci bakkanam euh, dañu koy topp ci kanamu yoon ba tey bu ñu sukkandikoo ci journal bi ku faat Ousseynou Ndiaye moomee police daal dina koy identifier kookee di commando marin dafa génn provisoirement ci enquête bi dal di daw am fa mu làkku ñaari frère am yu ko yombalal nag dawam wa jàpp nañu leen ba placer leen en garde à vue gannaaw perquisition euh, chambre du militaire nga xam ne ni am na ay munitions de guerre yu police euh, gis si boobule xibaar lay des ak yéen ba tey match de football bu doon wutale démb ASC Nîmes gi ak Tottenham musiba la mujjee euh, daal di jur ca terrain natange nekk ca commune bu Yëmbal Sud benn ancien militaire bu ñuy wax Souleymane Dé nag moo wañaar baatu gérant Arsenal mystique bu Tottenham di Ousseynou Ndiaye judd 1992 mu daal yi si ñàkk bakkanam ñoom ñaar nag dañoo jotee ci bal ba ñu war a jëfandikoo ci match bi ba ñu nag bënnee benn bal wa te xamuñu kan moo def li ni mel ay joueur ay si Tottenham proposé beneen cuir ngir assurer partie jeu bi si noonu ne la Ousseynou njaay bañee gannaaw ba mu soupçonné ni dañoo def ay xarfa fuufa ci bal ba ci noonu ne la coow juddoo di si seen diggante ñaari équipe yi ba rek lii juddu ca mu teewee woon di benn réunion gu ñu fal si coalition présidentielle bi di Benno Bokk Yaakaar njiital assemblée nationale bi di Moustapha Niass nekk tamit njiital alliance des forces du progrès daa dinay dal ñuy critiquer njiitu réew mi Macky Sall mënuñu opposé wu ci njiitu réew mi Macky Sall waaye kenn mënula dem Mbour rek te jaaroo ci autoroute ba mu construire wa illa déployer ay élam ngir parcourir Sénégal mënula nekk ndaxte dañoo obligé jaare ci lu Macky Sall réalisé mu xamle ko kanamu njiitu réew mi Macky Sall laata mu si yokku ne il faut être réaliste te reconnaître effort yu président di def ngir peuple am te dañoo war a nangu dëgg ba tey Moustapha Niass daal di xamle tamit ne njiitu réew mi Macky Sall njiitu réew ba royukaay la ndaxte réaliser na lu bëri depuis atub 2012 te dañoo war a ñaan mu jëm ca kanam ci noonu ne mu ne ci société bu am nag ñuy xalaat ñu ne am na tamit ñeneen ñoo xamante ne ni soxor ak violence la ñuy demee doy waar di kawteef dëgg lañu ñu nemmeekooti benn xale bu jigéen bu ay atam toll si fukk ak juróom la waajuram bu góor violé ba noppi ëmbal ko xale bi nag nee na waajuram bu góor boobee eh, di em ñang eh, ñetti yoon la ko tëddee mbir yi nag mi ngi ak xewee eh, ci diggante tuuba ak Njaareem waajur bu jigéenu xale bi ak nijaayam nag daal dinañu si yàddu nijaayu xale bi la mu xamle moo di yaayu xale bu jigéen bi daa nekk jigéen bu wërul doom bu muy boot xamante ne yaram bi yëpp daal dafa mel anam bu doy war ba tax mu yóbbu ko dispensaire di Guissé bu Diourbel ñu hospitalisé ko foofu si noonee nijaay bi euh, di ne rek euh, ñu dem ba jëmmi jamono sage-femme bi ne ko xanaa yaayu xale bi amuloo ku ko mën a relever ndax rek yaay ji daa nekk jigéen bu wërul euh, te sori na loola ndaxte doom ji bu juddoo fekk kii mel ni mën na ko wàll mu xamal ko ni taawam bu jigéen mi ngi Tuuba am na fukki at ak juróom laa taamuy fajul xale bi fajulit eh, yaayu xale bi moom eh, mi nga xamante ne nii eh, mooy boroom kër ndaw si si noo ne mu ne mu wax nag ba sonn ngir Mati ñëw relever waajuram bu jigéen waajuram bu góor dal di bañ ne Mati du ñëw ndaxte rek amul sax si ko suuf kuy mën a tax doomam ji ñëw ndekete nee na intention bi ni mel la si amoon di tëdd ak xale bi te bu ko doon tëddee da ko doon rek dal di takk buum ba noppi yoral ko paaka ne ko boo yuuxu ma doy la eh, nijaay ji nee na sax ñoom eh, ñëpp ay mbokk lañu waaye eh, ba papa ji tëddeewee doom ji ba noppi rek dafa dal di daw am ay complice yu ko nëbb ci biir famille bi ñi naan sax nañu wuuti ay xalfa fuufa tëj la ngir mu bañ a wax lu ñeel nag xale bi nijaayam neen mu ngi koy wuutal ay ñaan ngir xelam dellu siwaat ndaxte dafa xaw a absenté ndax nakkar te day jooy rek guddeeg bëccëg lu ñeel nag sëy bi neen su meyee yaayu xale bi baat ak su ko mayul baat yëpp lislaam tas na boobulee sëya tey naan papa ji ñaawteef bu mu def moo tax mu dal di daw ndax ku deful dara doo daw waaye nag daw bi génnewu ko si te mënul tax mu raw su dee génnul Sénégal ila mu dugg bàmmee la waajur bu jigéenu xale bi nag nee na moom dafa ñëw ci magam di faj doomam ñu woo ko ngir mu indi doom ji mu bañ ne ju ko bàyyi mu ñëw si noonu mu ne ba mu ñibbee nag la ko seetlu ne ko lan moo la dal doom ji ne jëmmi jamono magam ba jël euh, xale bu jigéen boobu am fukki at ak juróom yóbbu hôpital ba ñu ko xoolee dañ leen xamal ne xale bi dafa toll diggante mu laaj papa ji waaye yaay ji nee na euh, pappa ji waxu leen benn xalaat laata xale bi euh, di leen di xamal ni dañoo tëdd ba guddi pappam jël ay dra ñu ko ci gémmiñam bi jël buuma takk ko ba mu dëgër xale bi nekkoo ko li nga may def xaru sax moomu ko gënal papa ji jël paaka rek daal di koy teg ca puttam ba di ko tëkku ne ko booy wax rëy la ah, ba loolu weesoo yaayu xale bi ah, ne rek borom këram joojee ànd na ak xelam dara dalu ko ah, tuxul naanul la mu def yëpp moo ko tey maanaam ci coobareem la ko defoon ndax xam na ne rek doomam la di taawam daggee ci butitam te yëg na lu xew moo tax rek mu daw te it sarax la demoon Jurbel kër nijaayam ba mu dëggee nag coow la foofe ñu si wax la dal di daw dem ne mes rek ba jamono ji kenn xamul fa mu nekk si noonee yaayu xale bu jigéen bi la muy rek mooy ñu tëj euh, borom këram góogee euh, ba mu dee rek ñu suul ko tey xamle sax ni euh, kër ga leen sëriñ ba mayoon sax sëriñ ba da ko nangu ba nit ñaa nga fa rek di daanu di mbir mu métti loolu damay jubali ca Pout addu ci mbirum xale bu jigéen bàyyi atam toll si ñett te ñu fekk ñu faat ko ba noppi duggal ko ci ab fosse septique ak si enquête bi njëkk firndeel bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi élément yu njëkku enquête bi daa firndeel ni xale bu jigéen bi rendi ko wuteeg lu dëkk dëkkandoo yi doon wax secret yi nag tàmbali naa feeñ ci mbirum tout tànk boobee ñu fekk mu ñàkk bakkanam ba noppi dugal ko ci biir benn foos bu nekk ca daara ba mu doon jàngee alxuraan ca kër Matar Gueye nekkee ci puut bu ñu sukkandikoo ci libération kay jàngal xale bi alxuraan moo wax ay mbokki xale bi ngir ñu dem seet ko ci foos ba won leen fan la foos ba nekk jamono ji nag enquêteurs yi ñoo ngi si ñaari piste yu sérieuse ngir teg loxo xale bu jigéen boobee nga xamante ni ay waajuram moom képp la leen yàlla dénk gannaaw ba ñu sëyee juróom-benni at amuñu bant. ñàkk kaaraange gaa ngi tàmbalewaat li ni mel nag ña yeewoo ca Saly ak kumum hôtel bu ñuy wax euh, la Médina duñu ko weddi benn yoon euh, ci week-end bi ñu génn ci ay booru 4 heures du matin benn groupe bu yor ay jaasi ñoo wàcc ci réceptifu hôtel boobee gannaaw ba ñu tëbee mur ba euh, bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi defkatu ñaawteef yooyee dugg nañu ca ñaari néeg benn bi ab italien moo fa logé woon ba ñu xeexee nag xeex bu métti moom italien beeg defkatu ñaawteef ya dal di gaañ ci baat eh, ba noppi yóbbul ko fukki junne yo dollar eh, si ñaareelu néeg ba nag ñoo ngi fa ronki cent quatre-vingt mille francs CFA ak téléphone portable bu bakkane yuuxu ya italien ba doon yuuxu di leen yeebaane nag moo tax rek ñu dal di daw eh, bàyyi fa télévision ya nga xamante ne nii jotoon nañu ko démonter ba noppi gannaaw ba Papa Thione Ballago Seck génne àdduna Ahmed Aïdara daal dinay xëy tey ci talaata ji xamle lu doy waar moom nag nee dafa am ay doomu aadama ya nga xamante ne nii uh, dañuy naan daal uh, dañuy ket di dajale koppar ngir ñeent fukki guddi yi di li nga xamante ne nii uh, ñoom dañuy def rek seeni ay mbir ndaxte famille bi kenn yebalu leen ñoom ñooñee am nañu rek la ñu defee lépp lu ñu namm ci seen waajur bu góor googee génn àdduna ba tax rek ñu ne ñoom sax daal dinañuy yemale lépp li ni mel daal kenn santu leen ko ak rek lu leen ci dugal seen coobare bopp la ba tey rek Ahmed Aidara ne sax nit ñi nga ngay euh, taxaw sax ci kër euh, Thione Ballago Seck nee na daal euh, fees nañ dell ca bunt ba ku nekk rek di naan dama gént Papa Thione mu ne lii ak mu ne la di mbir mu nga xamante ne nii nee na rafetul nañu jógee bunt kër jàmbur ba te ñibbi gan ya tamit Ahmed Aïdara nee na nañu ñibbi ndaxte keroog ba Papa Thione Ballago Seck génnee àdduna ba tey ñu toogaamu famille bi rek xamuñu ba xam ndax la ñuy jëndee nag dañu koy cotiser wa ilaa nañu koy defee ba tax rek mu ne moom de bu ne woone moom la góor day taxaw ne leen rek euh, buub leen seen i bagage te dem ba tax mu naan euh, góor ñu nekk ca famille ba euh, xamal gan yi rek ne leen buub leen seeni i bagage te ñibbi dëj wi jeex na bu yàgg moo xam ne ko moom Ahmed Aidara famille Ndour daal dinañuy daje démb ci altine ji ci père Elimane Ndour Youssou waa waajuram bu jigéen Ndeye Soxna Mbuup ak ñu bëri ñu bokk ci famille bi daal dinañu koy souhaiter joyeux anniversaire gannaaw ba bés bu mu gane si àdduna dellu suwe si noonu kontaan lool yàlla nañu ko yàgg di féete. reenu jolof band bi di Viviane Sudid mooy lauréate prix meilleur artiste féminin 2020 li ni mel nag doon na luy firndeel ni Viviane mooy woykat bu gën a xarañ ci atub bi donte teeweewul woon xew-xewu Raaya Music Awards bi bonheur bu rëy la Viviane Sudid recevoir li ni mel la daal di jaajëfale ay fansam ki jege ñaaleem yu ko mës di soutenir ci musique am bi tàggat yaram laa koy tëjee ak arène nationale. bu ñu vandaliser di béer ci bés bu njëkku promoteur bi di Serigne Modou Niang nga xam ne ni grand combat bi mi ngi nekkoon ci diggante capitaine Dina bu Yoff ak Cheikh Super Jamono bu écurie Mor Fadam ci noonu ñu daal di tojate lépp li ni mel nag tax na ba CNG euh, suspendre lu tolloo ko juróomi mbër yi di Mamadou Sey ñu naan ko Boy Diop Adama Dione Fils Lansane Moustapha Thioubane Limousine ak kii di Cheikh Ndiaye Super Jamono ngir ñaari xalaat ba noppi euh, tere leen ngir ñu teg seen tànk ca arène nationale euh, seeni ay reliquats daal dinañu koy confisquer tamit euh, CNG dina déposé ba tey ab plainte ca procureur ngir acte de vandalisme